waxtaanee ay ponk yu bëri mais commencer par euh, peut-être euh, dinañu wax ak ci le fait que Union européenne ñëwoon démb file ci Sénégal am euh, jàkkaarloo bu am solo boo xamante ni am na ko ak le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye am ay cadres yu nga xamante ni échangé nañu ko ci mbirum accord de partenariat yi nga xamante ni mooy tënk ñaari réew yi leen di hmm. France ak Sénégal l'Union européenne entre en outre wala. nan laa ko mën a tuddee l'union européenne. l'union européenne. Ah. waaw en général. en général waaw en général la France en particulier oui la France en particulier absolument noonu nga ko waxee noonu la. Mhm. mi ngi mm. noonu alors ñu daal di dem yi tamit ci euh, déguerpissement yi nga xamante jamono ji ñu leen di déguerpir yëf yi nag daal di jur ab coow dinañ ci waxtaan bu baax a baax euh, sànni sànni ci ay kàddu daal di dem ci tapis rouge bi nga xamante ni Ousmane so entre le tapis rouge entre Sonko et Diomaye am ay kàddu yu nga xamante jamono ji am nañu ko ci. yëkkati ñu xool bu baax a baax naka la euh, Moustapha Diop gisee lu ni mel daan ñu koy décortiquer à sa façon mais it wax ci nombre insuffisant de femmes yi nga xamante moom la ñu noom euh, nemmeeku dans le gouvernement mu mel ni gouvernement bi 25 la waaye 4 jigéen dañ ci nemmeeku am ay féministes euh, yoo xamante jug nañ di ñaawlu ndax loolu jar na ko am déet ci kanam tuuti aussi dinañ ci waxtaan daal di terminer par la rencontre entre Macky Sall et les ministres mënuñu bañ a wax aussi ti motion de censure bi nga xamante ne jamono ji aussi ñu koy ruumalaat ci euh, Ousmane Sonko foofee ca assemblée nationale bi lan moo ci war a nekk taxawaayu benn Bokk Yaakaar ak buñ ko defee aussi lan la ci le président Bassirou Diomaye Faye fas yéene taxawee. donc euh, Moustapha démb union euh, union européenne daal dinay ñëw filee ci Sénégal mhm. jàkkaarloo ak kilee di euh, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye am ay kàddu yu nga xamante ni biral nañ ko foofee ci palais de la République le président Bassirou Diomaye Faye di wax un partenariat repensé rénové et fécondé donc ku ne mën nga ko jàngat mais on a vu que c'est des mots forts yu nga xamante ni yëkkati nañ ko fa man de lima ma ci njëkk a neex mooy euh, fierte bi may am nekk sénégalais am un président bu tudd Bassirou Diomaye fay ba mu faloo ba léegi matagul weer mhm. muy teg jéego yi muy teg te bi mu teg démb man ma am ci fierté lan moo tax mhm. dama seetlu ne fii ci Afrique réew yu bari bu ñu amee njiit bu bees rawatina réew yi nga xam ne France moom moo ko colonisé woon ñu ngi wax les pays de l'espace francophone mhm. li ma seetlu mooy bu ñu daan fal njiit bu bees njiit bi bu prêter serment rek fan yi ca topp day tekki bagage am dem France. dem France oui. président Macky Sall mii keroog bi nga xamee ne moom la falu en 2012 nga xam ne France dañu nekkoon ci élection présidentielle diggante Hollande ak euh, Sarkozy suma juumul. Mhm. defe naa noonu la woon. ñu tolloon ci seen deuxième tour xamaguñu woon sax kan mooy falu. Mhm. defe naa ne euh, defe naa Hollande la woon non Sarkozy la woon ak. Euh, Ségolène Royal je ne sais plus mais il faudra vérifier mais li am solo mooy France dañu nekkoon ci élection te pareeguñu sax pour xam kan mooy nekk seen président. Mhm. président Macky Sall jóge fii jël avion dem seeti Sarkozy. Mhm. à l'époque la ñu waxoon mooy Ablaye Wade dafa bàyyi woon ci réew mi benn situation boo xam ne il fale ñu dem France sinon kon duñu mën a fay salaire yooyu. Mhm. tey jii seulement li ñu war a seetlu rek ñun ñëpp mooy bi ñu falee Bassirou Diomaye fay ba léegi. bu génn bi mu génnee ndakaaru gi Touba la dem. Touba jaar Tiwaawan mhm. bi mu génnaatee ndakaaru Mauritanie la dem. Mhm. bi mu génnaatee ndakaaru bànjul gii la dem. Mhm. loolu nag euh, man dama doon wax ne mooy li normal parce que un chef d'état ci réew mel ne Sénégal soo ko jiitee. fexeel am jàmm d'abord ak le voisinage bi nga dëkkal. Mhm. maa ngi fàttali fii keroog wax joo xam ne Abdoulatif Coulibaly mii moo ko doon wax. que mhm. ni moom dafa jàpp ne président wu Sénégal ses premiers voyages Gambie la ko war a def ak fu mel ne Mauritanie yooyu. Mhm. ma ne kon Diomaye dafa jaar ci li nga xam ne pour man dama jàpp ne moo war a nekk li président sénégalais doon def. mais li nga xam ne moo tax ma am fierté démb mooy dama doon gis ne tubaab yi dañ doon comporté wu comme ñoom ñun ñoo leen soxla. est que yaa ngi di ko ñun ñoo leen soxla c'est-à-dire que ñun bu ñu daan fal un président sax fa ñuy toog la toog suñu président dem seeti leen wax leen ay soxla yi nga xam ne suñu réew yi am na ko su ko defee ñoom ñëw jéem koo faj mhm. bii yoon li lay xamal ne am na luy changé mooy tubaab yi ay nit yu yeewu lañu mhm. tubaab yi seen intérêt rek lañ xam dañu mën a jàmm seen intérêt avant ñuy fal Bassirou Diomaye fay xamoon nañ situation wu Sénégal fi mu toll xamoon nañ lan mooy projet bi euh, Ousmane Sonko porté. xamoon nañ également lan mooy gis-gisu Ousmane Sonko ci diggante Sénégal ak les partenaires étrangers rawatina la France. Mm-hmm. ak Union européenne boo nee France Union européenne. léegi su fekkee dañoo fal président ñoom xam nañ ne defe naa sax même Emmanuel Macron fan ci gën a am na fu ma liir. Mm-hmm. mu ne invité na. Bassirou Diomaye ak Ousmane Sonko pour ñëw seet si ko. Mm-hmm. mais boobu léegi. dama gis ne muy Bassirou Diomaye di Ousmane Sonko xoromaluñ invitation en tout cas dégguma ñu wax ci mhm. am na président yoo xam ne bu doon ñoom suñ su su tweet bi wàccee ne invité na leen mhm. ca saasa la ñuy woo seen kii ne leen defal leen avion bi na tàkk ñu dem mhm. mais ñii tontu wuñu leen ba mu tax ki nga xam ne mooy Charles Michel di président du conseil européen jóge Europe ñëw fii ci ci Ndakaaru su fa jugee ñëw Ndakaaru moom président conseil européen la mais na leer ne Sar euh, nu mu tudd Emmanuel Macron ak ka jiite Allemagne ka jiite Italie ka feneen ak feneen ak Espagne ñoom ñoo koy sant ne ko dem. Mhm. parce du déplacé wu rek parce que dafa neex dafa ko neex mu déplacé pourquoi parce que Union européenne dafa am ay intérêt yu baree baree bare ci Sénégal te rawatina ci wàllu. pêche ak seen bateau yi nga xam ne ñoo nekk ci suñu waax yii di fi def lu leen neex mhm. suñu déggee discours bi nga xam ne moom la Bassirou Diomaye fay def mhm. te plusieurs fois ci conseil des ministres ñu dégg ñu ne danañ audité les contrat yi nga xam ne moom la mhm. régime Macky Sall signé woon dinañ nangam dinañ nangam dinañ nangam suñu déggee loolu dañ naan nag nañu sol suñu dàll. dem seeti ko suñu su déggee parce que li leen tax jóg mooy bu ñu ñëwee jéem ko rassurer. wax ko ne ko ñun lii ak lii am beneen boo xam ne man dama ci fier te démb laa ko lire. Euh, sur le la page de la président de la république et man dama jàpp ne lu am solo la. mooy bi Bassirou Diomaye fay waxee ne coopération wala partenariat. repenser et rénover. xam nga wax nga ko sax. mais dafa am leneen loo xam ne daf ko wax ci biir mooy moom dafa jàpp ne. entreprise yi nga xam ne ñoo nekk ci diggante France ak Sénégal parce que là il faut simplifier ba ñu wax Union européenne muy compliqué dañu wax France ak Sénégal. entreprise yi nga xam ne ñoo nekk ci diggante France ak Sénégal. Mhm. am ñoo xam ne ñi ngi fii ci Sénégal di fi liggéey yaakaaruma ne ay entreprise sénégalaise am na France. Mhm. su fa amee aussi lu néew lay doon te la ñuy gagné euh, pratiquement c'est multiplié par zéro. Mhm. mu wax lu am solo daf ne moom moom euh, laa dafa mel ni inspecteur des impôts mooy wax quoi. moom Diomaye Faye daf ne entreprise bu nekk moom li mu gëm. mooy famille muy produire richesse fa la war a fayee impôt. Hmm. je ne sais pas ba xam lin nga loolu fa war a fay impôt. Hmm. te loolu li tax sénégalais yi war ko déglu war ko cee jàppale bu baax a baax. Hmm. mooy bi Macky Sall nekkee président wu Sénégal am na coow lu fi jógoon. dañ doon wax ne. entreprise u française yii nekk ci ndakaaru gi du ñu fay impôt. ci Sénégal. France lañ koy fayee. parce que dafa am benn lëkkaloo ma mën koo tuddee benn convention bu ñu signé. Mhm. diggante France ak Sénégal kii dit ko entreprise u France mën na di produire richesse Sénégal di fayee impôt ca France. Ah, entreprise u mën nay produire richesse richesse ca France di fayee impôt ci Sénégal. Mhm. mais loolu boo ko signé ak tubaab yi mooy dan lay nax. ba pare yow ngay nax sa bopp. Mhm. parce que entreprise u Sénégal buy produire ay richesse ca France. man day gisuma. xaw ma su amee exa merci Salma. bu amee. tolluwaay yi moo bokkul. léegi boo liiree Bassirou Diomaye Faye li mu wax. daf ne moom dafa jàpp ne wala boog ñoom. waa régime bu bees bi. dañoo jàpp ne ñëpp ñi nga xam ne ay entreprise lañ fa ñuy produire richesse. fa lañ war a fayee impôt mais loolu. ñun Sénégalais yëpp waroon a jóg. ne ko ndokkale. te dana la ci jàppale pour loolu am. parce que entreprise du France yi su fekkee ne ni ma ko déggee noonu la amee que ne duñ fay impôt fii ci réew mi mais loolu. perte bu baree bari la ci réewum Sénégal mhm. xoolal ñi ci autoroute bi xoolal ñi ci téléphonie bi xoolal ñi ci supermarché yi xoolal xoolal xoolal xoolal mhm. non seulement suñu doom yi nga xam ne ñoom lañuy recruter di leen liggéeyloo mooy ñu yor station service par exemple parce que man saisir nañ ma plusieurs fois pour ma wax ci seen situation mhm. ñoom ñoo xam ne ñoom lañuy ñuy liggéeyloo déjà boo yow boo déggee ñu ne kii de entreprise bi muy liggéey waa France ak moom Salma lan ngay njëkk xalaat soo déggee rek tey ji nga toog ñu ne ah Moustapha Diop day entreprise bi muy liggéey léegi waa français ka moom looy njëkk a xalaat. na xaalis ah traitement bu baax lay am. Mhm. day am salaire bu baax day am lépp. Mhm. laa jël sénégalais yi nekk ay pompistes ci yenn station yi. Mhm. laa jël sénégalais yi di liggéey ci supermarché yi. tubaab yi moom laa jël sénégalais yi ne ci feneen ak feneen ak feneen tanewuñ la tanewuñ ma. ils vivent des situations extrêmement difficiles. parfois bu ñu la waxee niveau de salaire bi ñu am sax da ngay jaaxle ba pare boole ceeg ay heures de travail yu impossible maanaam ni ko ko xaj dafa ma woo daanaka dama dama jaaxle quoi mu ne ma même bu fekkee da nga am xew boo bëgg a dem. Mhm. wala comme màggal wala dara dangay ngay anticiper liggéey jour boobu. pour wut ko la mën a beneen sinon du mën nekk. Mhm. imaginez des gens yoo xam dañuy ñëw ci station service 6 heures ba ba 0 heure. c'est de l'exploitation. exact waa léegi buñ ci boolee duñ fayee l'impôt ci suñu réew mi léegi ban njëriñ la ñu amal. benn. emploi yi ñuy créer c'est des emplois finalement précaires emploi yoo xam ne da waroon a yaakaar ne emploi yi mooy emploi yi gën a dëgër ci réew mi c'est des emplois finalement précaires boole ceeg ñu ne la bu ñu waree fay l'impôt duñ ko fayee suñu réew yi seen réew la ñuy dem fayee ko fa mais ñooñu lan man je veux bien qu'on m'explique à part euh, occuper ay terrain tabax fa ay magasin wala ay station lan lañ ñu jëriñ te boo demee France tey mhm. seen seen seen kii yi nekk fii mais amuñ seen seen junni xel. xalaatul di traité seen employé français yi ni ñuy ni ñuy traité suñu employé yu nekk fii. même un sénégalais bu dëkk Sénégal gi juddoo fi yaroo fi dem France am fa nationalité. ñu jël ko muy liggéey seen magasin yooyu duñ ko traité ni ñuy traité ñii. waaw léegi ñu koy traité suñu suñu doom yi nekk fii. ba pare boole ceeb duñ fi fay lempo moo tax quand j'ai lu ça. ci lii Bassirou Diomaye Faye waxtaan ak tubaab boobu dama ne macha allah alhamdulilah lii yàlla na ko ci yàlla jàppale ba am ci résultat milliards yi ci nar a dugg mën naa tabax lu bëree bëri ci réew mi mhm. moo tax ma ne ce qui s'est passé hier yal na jomaay bañ a soppi mhm. sa façon de faire muy ne di ko def et gëm naa ne dina tax tubaab yi respecté ñu mhm. gën ñu respecté su fekkee respecté wuñu woon et dina tax ñun ñu am ci njëriñ parce que seulement bu la ci kenn nax wolof moo ne Euh, sama benn maam moo wax dara mu ne ko xamul ñaata ngay jariñ nga xam ñaata ngay jaay sa bopp. Mm-hmm. su fekkee am nga jëkk mais li gën mooy bañ am njëg. Mm-hmm. gis nga tubaab bi buñ la xoolee nga xool leen les yeux dans les yeux. ñu xam ne yow mii tu les regardes les yeux dans les yeux. Mm-hmm. loo bëgg ci ñoom na nga koy am te beneen bi mooy. suñu président yi xam ne ñoom ñoo fi jaar. muy Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade dans une moindre mesure. Abdoulaye Wade mais Macky Sall surtout c'est des présidents yoo xam ne dans leur tête. dañ ci ancré benn chose mooy lan mooy ñoom seen nguur yi dañu jàpp ne suñ ko amee mu dëgër France tax. France tax oui. dañu jàpp ne ils doivent quelque chose à la France. candidat de la France da nga ko doon dégg tout da ko daan dégg même si yàlla si Ibrahima Sène yàlla ko yàlla yërëm. Mhm. élection présidentielle 2012 entre bi ñuy ñuy nekk campagne. Mhm. la commencé woon dex di wax ne Macky Sall c'est le candidat de la France. Mhm. élection yi ñu jàll daan nga dégg ñu naan xaw ma nan ba. Amadou Ba c'est le candidat de la France. mais Diomaye Faye mii. moom leer na ko moom. que ni bu doon coobaree France rek. Mhm. avenue Roume bii avenue ñu tuddee léegi Léopold Sédar Senghor. tànkam du fa jaar. Mhm. bu doon France rek tànkam du fa jaar. donc su nekkee président de la République du Sénégal il ne doit absolument rien. Mhm. à aucun chef d'État du monde. particulièrement aux Français. il ne le doit rien du tout. il ne le doit que qu'à une personne. Mm-hmm. le peuple sénégalais ñoom ñu tànn ne moom mooy nekk seen président donc kooku il a tout pour regarder les les les les ses partenaires waxuma français. Mm-hmm. mais d' autres pays du monde. Mm-hmm. les puissants du monde les yeux dans les yeux parce qu'il ne leur doit rien du tout. bien oui et puis loolu laa seetlu démb ci ci ci taxawaay bi parce que man dama gis ni que. Euh, euh, le français comment il s'appelle tur bi. Euh, comme ça Charles Michel. en tout cas il a essayé de le convaincre. di ko jéem a baab buñ ko mënee wax ci suñu suñu kàddu mais lu am solo la parce que avant da nga daan gis que day ñëw lire ay discours am rek dem mais démb da ko doon convaincre di ko baab ci ay kàddu xanaa bi nga nekk ici da nga jàng analyse euh, am na am na benn cours bu ñu fa doon jàngale foofu Abdou Aziz moo ko daan def tudde ko analyse du discours oui Domingo Mané ma koy ziar moom <laughs> suñu prof communication quand discours Salma li nga mhm. wax ni mooy li am mhm. c'est-à-dire que ton bi. les moo qu'il utilise moom mooy chercher à convaincre. Bassirou Diomaye moom mooy chercher à wut lu neex Bassirou Diomaye. Mhm. mais Bassirou Diomaye fa mu ne ma nga fa. ma nga fa oui. Mhm. loolu c'est man man pour man ay ay mbir la yuy changer yoo xam ne ñun dañ koy xeeb mais di si quelque temps on verra que ni lu am solo la. Mhm. bul fàtte ne euh, bi fi Macky Sall waxee Obama ne ko ñu pour daganal. góor waa Benno yi dañoo génne c'est une réponse ferme la ko wax ma ne leen c'est pas une réponse ferme daf ne ko pareeguñu ça veut dire que ni bon d'ici dix ans wala cinquante ans mën nañ pare mm-hmm. la réponse ferme c'est de lui dire fii Sénégal la mm-hmm. ngóor jigéen kenn du ko fi daganal mm-hmm. jamais tëjal réponse ferme mooy ba ma Ablaye Wade defoon euh, ambassadeur Amérique ba xaw ma nan la tuddoo Bernica xaw ma. ba mu fi waxee xaw ma ne Macky Sall Ablaye Wade da ko convoqué palais mu ñëw Ablaye Wade da ko bu mu ko déggatee nga génn réew. waaw ah, waaw loolu mooy réponse ferme. et loolu. ñun buñ ko xeeb. parce que nous sommes un état indépendant. boo xam ne day xeex pour souveraineté am te li koy wane li koy maye mooy ñu xeex pour suñu économie ñu xeex pour suñu sécurité mais également ñi nga xam ne ñooy porte suñu parole muy suñu njiit ñuy def poser acte yoo xam ne yow Salma man ak ñi ñuy déglu surtout les sénégalais de la diaspora. bu ñu ko xoolee ne ah man mii kat je je dois être fier de ce président parce que lii muy poser mooy. surtout président bu jiite un état indépendant. Mhm, mhm. loolu pour man c'est am. lu am solo la lu am mm. solo la ah donc on espère que li ciy tegu dina neex ñu continuer rek ci lancé bi seen réew. bu ko defee ci sénégalais yi ma ne li ciy tegu dina ah, am solo ci lépp loo mën a gis. wallaay alors euh, am na ku tuddee noonu parti am de àndu nawle non Serigne Boub. Serigne Boub coalition Serigne Boub moo tudd àndu ah, nawle. àndu nawle mais mhm. c'est un mot boo xam ne dafa bari sens lool